mais loolu du jàll nappalu leen Macky Sall ci boppam moo leen gën a xam ne loolu du jàll daf ñuy nelawloo rek voilà il faut ma amnistie donc am na bu ma amnistie vraiment voilà ci laa ma a baal nit ñi nit ñëw ñu defuñu dara Ousmane Sonko soxlawul Macky Sall amnistie ko d'ailleurs moom ñaanul amnistie Ousmane Sonko soxlawul Macky Sall jéggal ko d'ailleurs ñaanul njéggal jomaay même chose keneen même chose keneen même chose quant nag sénégalais yi